naa suñu xel yi dalaati nañu Aly Ngouille Ndiaye de woote na li ñu gën a kontaan nag mooy maanaam concept bi muy expliqué ndax daf ma nuru benn concept buy def prévention de conflit penc mu ñuy waxtaanee ci problème yi yi waa penc bi séq trouver solution boo ñu solution dana tax duñu war a dem feneen loolu moo am loolu moo am solo ci li ma wax dëgg-dëgg ma dégg ko muy exemple boo xam ne bii jar naa méditer jar naa multiplier waa Sénégal buy si leen suñu yaakaar bëggati naa kenn ku ne xam ne aussi artisanat ay millions wu ñoo fa ne donc bu jëlee ce volet la muy vole formation au niveau de l' artisanat moo tax ma jàpp ne ñun bu ñu jëlee réew mi bu ñuy defee suñu loi de finances rectificative bu ñu xaymaa li ñu soxla jàppale les vingt et un de métiers yi nekk ci artisanat jàpp na ne bëgg nañ cee dugal cent soixante dix milliards. tey sama présence fii ci Thiès ma daje ak artistes yi ñuy ñu ma xam bu yàgg bokk ci sénégalais yi leen di suivre comme beaucoup de sénégalais euh, ñu di leen suivre donc nit ki bu lay suivre dina xam également lii say jafe-jafe yaakaar naa ne ñu ñëpp gis nañ. ay artistes yoo xam ne yi dañuy am beaucoup de difficultés parce que artistes yi nag du tout le temps rek la nekk au diapason. Mm-hmm, mm-hmm. te gis nañ fi par le passé ay artistes yoo xam ne yii dañuy bu ñu feebaree da leen di ketal mm-hmm. artistes yoo xam ne yi bëggal nañu. ñun je me rappelle jeune ba grand dañ leen di seetaan ñu ñuy bëggal mais da ngay toogam yàgg rek koo ci gëj a dégg ba mooy danañ ko ketal. mën naa bañ a tudd tur man am na ci ñoo xam ne ñi xam naa leen kon euh, loolu euh, gëm naa it ne pour le développement de de la culture euh, état war na gën a jàppale artistes yi. waa Sénégal wuy si leen suñu yaakaar dogati na